wa taslimaatuhu ala afdalil anbiyaai wa sayyidil mursaliin wa ala aalihi wa saxbihi wa xadiimihi ajmaiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki julli gi ñu ngi sant yàlla sunu borom di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen di leen ziyaara di la ndokkeel di la ndokkeel ci xew-xew bu tedd bi ñu génne waaye di leen ndokkeel itam ci bisu ajuma bi di ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru safar ci atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñu bàyyi ko ci xew-xew bu màgg waaye ñu dëgmal tam beneen xew-xew bu màgg ñaari xew-xew yooyu di wane bu leer naññ yàlla ni mu lëkkalee mbirum euh, ku baax ki ak ku tedd kookee alayhi salaatu wasalaam santaane bi nga xam ne moom la santaane woon ak ya ko jiitu loolu santale ko boroomam ak yeneen digle ya mu digle ak santaane ya santaane te mu jiitu dafa am loo xam ne nag moo ko war a lal ñu war koo nafar ci jataay bii warit di ko nafar ci jataay bi mën a doon te mooy lépp lu ñu jëf nañ ca jiital loo xam ne bu ci jiituwul jëf ja mën naa rëy mën naa bari coono waaye njariñ la mën naa néew te loola mooy li ñuy wax al ixlaas nit ki lépp lu ñuy jëf sellal moo ko war lal bu amee leneen lu mu ca rax lu dul wut ci ngërëmul yàlla rek day sonal boppam buñ ci wut siiw ñu koy waxtaane buñ ci wut ku koy tagg buñ ci daw ku koy ŋàññi moom daal na yàlla rek a tax kon màggal gi ak leneen lu dul màggal gi buñ ca dee sonn di ci jëf di ci ñaq nañu fexe ba sellal na ko lal sellal nag day loo xam ne wax ko ci làmmiñ yomb na waaye képp ku ko bëgg jëf dangay góorgóorlu di bërig sa bakkan fexe ko not am na nituk yàlla ku ñu laajoo ne ko ana lu gën a metti ci bakkanu doomu aadama loo xam ne soo ko ko tegee mu dis ci moom mu ne leen al mooy lay def yàlla rek tax di ca wut yàlla doo ci wut keneen moo tax bari na koy sonn di kër këri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

Sure. محمد رسول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 booba jaam day sonn waaye jaam bi nga xam ne benn borom la am xam ne la mu bëgg mu di ci xëy di ca gont booba jaam day noppalu daraba allahu mathalan rajulan fihi shurakaau mutashaakisuun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani mathalan alhamdulilahi bal aktaruhum laa la sëriñ bi di wax naan képp ku jublu ci yàlla dong dong dong da nga noppalu da nga noppale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 Abdou Khadir Abdou Khadir waaw dëgg la dëgg la waaw man man mii ñëw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 الحمد لله الذي يسر على مصاعده وربحه وأصحابه الذين أعلنوا بسنته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا إنه إله إلا الله بإذنه وسراجا منيرا ومن أعظم هذه الخلال وصلى عليه بنفسه كما صلت عليه ملائكة قدسه وأمر بالصلاة عليه عباده ذلك غاية الكمال وقال تشريفا له وتكريما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصل اللهم عليه ومن تبعهم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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء مهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى وذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى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 سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أهلكك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناظرة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها فيها عين جارية فيها سرر مرضات وأكواب مرضات ومواد مسكوبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصبت إلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم يتذكر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم الله سمع الله

asalaamaaleykum.